sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk ñu leen di dalal ci seen télé Islam TV ci suñu émission bu njëkk tey mu aju ci wàllu minbaru tawhid muy tribune di tawxid émission bi ñu jagleel ko ci xaaj bi jàngale téere bi nga xam ne mooy at tawxid lil nachia wal mubtadiin muy tawxid pour les débutants donc téere boobu dañuy jàngale tey nag ñu war a def benn introduction bu gàtt rek aju ci wàllu tawxid incha allah balaa ñuy dugg ci téere bi ni ñu ko xamee suñu borom subhanahu wa taala dafa bind doomu aadama yi bind aduna bi univers bi ñu nekk bind li nga xam ne mooy li fi nekk ci ay mbindaafoon mooy nit yi jinne yi di animaux yi di géej gi di gàncax gi di garab yi def fi ngelaw li ñuy nooyee sàkk malaaka yi sàkk li nga xam ne yu ñuy gis ak yu ñu dul gis yu ñuy dégg ak yu ñu dul dégg yi ne ci kaw suuf ak yi ne ci biir suuf yi ne ci diggante ak suuf yëpp suñu borom sàkk leen ngir ay objectif suñu borom yemu fa mu yónn ay yonant yonant yooyu mu yónni leen ci peuple ci kaw suuf yonant yooyu suñu borom wàccee ay téere boole ko ñoom jox leen ko pour ñu sukkandiku di waar jaam ya di leen ko xamal kon loolu lépp boo ko jëlee tënk ko mooy suñu borom dafa bind doomu aadama yi pour doomu aadama yi xam ko mën ko jaamu mën ko wéetal moom borom bi subhanahu wa taala comme ni mu ko waxee ci alquran ci suratu zariyat wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yabudun bind ma ñi ak jinne lu ñu daal di may jaamu daal di borom bi subhanahu wa yàlla waxaat ci sooratul anbiya verset 25 yow borom asamaan ñun de nangu nañu ne la weetal te duñu roy itam Muhammad sonu yaramu